دبي مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك دويلة للقرآن الكريم 6e édition du concours international du Saint Coran de Dubaï bi mooy juróom-benn yoon ñi amal fii ci Dubaï jongante alxuraanu karim bi nga xamante ni moo gën a mag ay réew yu sakkan di ci jongante un concours strictement réservé aux femmes jongante bi nag jigéen ñi rek nañ ko jagleel la Depuis son lancement en 2016, le Sénégal ne cesse de progresser dans ce concours. Bien ko ce ba léegi muy atum 2016 Sénégal gur gu et muy dox ay jéego yu dëgër Diarangom, ci kanam. Maam Diarra Ngom dëkk fële ca Touba nekk doom ci Serigne Moustapha Ngom Serigne Moustapha Ngom nekk wuyu juróom waaye itam nekk Serigne premier candidat bi participé woon ci concours Bob en 2016 jamono jooju sax 2016 mam Diarra Ngom mi moom moo jëloon premier si grand prix Sénégal Sénégal en 2016 nag ñaari première na amoon maanaam ñaari soxna ñoo nekkoon ci kaw muy Algérie ak Mozambique 2018 tolloog juróom fukk ak juróom benni réew bokk ci 56 pays kii di Maimouna Lo jóge Sénégal am fukki at ak juróom-ñaar nekk doom ci président Moustapha may Maimouna Lo mi nga xamante ni bokkoon na ci Grand Prix Sénico cinquième national moo ñëw fii ci Dubaï wana fii ak xereñ gu matale يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم غناو بصر نداري غنكو تاكتات ميمن لو نيو في دبي وانا في مانام اك نيامبار غو ماتلي داري جيل بور لا فوا دوزيام بلاس 2018 بي نك كي خامتاني مو جيلون بروميير ميغي ديكون بحريني ki toppoon mooy الحمد لله رب العالمين بفضل الله تعالى فزت بالمركز الثاني في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم أدبني أنا القرآن نقاني أنا القرآن أدبني أنا القرآن نقاني 2019 2019 nag 68 بي mooy juróom benn fukki réew ak juróom نيت ñoo teewoon Dubai biñ leen tesee ñaar dellu seen dëkk ndax mataluñu churut yi yi nga xamante mooy condition yi nga xamante moom ngay jàlle soxna Khady Dramé 12 ans jóge ba Louga nekk doom ci ki nga xamante ni mooy Serigne Ibrahima Dramé qul siiru fi l ardi fanzuru kayfa bada al xalq soxna Khady Dramé nag moom ki ko jàngal jigéen la muy soxna Mbayang Cissé yàlla nag borom santa la xare àjjana ndax moom yàggul dara dafa mujj génn àdduna gannaaw bi concours bi jeexee Sokhna Khady Dramé nag moom moo jëloon premier ci Grand Prix Sénégal 2019 bokkoon ci xale yi nga xamante ñoo gën a féete ndaw amoon fukki at ñaar daal di jël li nga xamante ne mooy juróom benn place bi mondial jël deuxième place Afrique 2019 sax ki nga xamante ni sax mooy docteur mbaalo bu Louga bokkoon na yi nga xamante ne mooy jury bi te n'importe ci mënul bokk ci jury bi maanaam bokkoon na ci li nga xamante ni jury bi nga xamante ni ñoom ñooy natt ñooy saytu ñàngum xale yi nga xamante ni ñoo nekk. fépp ci àdduna ñoom ni ñuy tànnee euh, jury bi moo di dañuy xool ñi nga xam ne seen xam-xam dafa ci xam-xamu qiraat gën jaa neewuñu peeg al qiraat as-saba di juróom-ñaari njàngin yi euh, ba noppi itam ma bokk ci ab jury international wala mu nekk am ay ijaazaat ci wàllu qiraat ba noppi ñu euh, jox ko benn tazkiya buy buy wane man naa gérer lu mel ne euh, bokk ci jury international. 2019 ki jëloon euh, raw gàddu gi mi ngi jóge woon fi nga xamante ne mooy royaume uni. ndaw si moo jëloon première place bi 2019 soxna Khady jël sixième. 2021 50 pays juróom fukki pays soxna Zeynab Ngom jóge fële ca Touba représenté waat Sénégal muy doomu Serigne Moustapha Ngom. soxna Zeynab ñëw itam wane fii ak njàmbaar gu matale wajarayna bihim biriixin tayyibatin wa farixu biha jaatha mu jël huitième place bi donc il était classé huitième à l'international jamono bii nag ki jëloon pay muy waa Égypte ba léegi Sénégal bàyyiwul di bokk ci li nga xamante ni moom mooy concours Dubaï bi fekk Grand Prix Sénico mi ngi avancé sénégalais yi di gën a xam mu nekk concours bi gën a mag sénégalais di gën a mokkal sëriñ daara yi aussi di gën a tàggat ndongo yi waaye di tàggat seen bopp ba mu nekkaat musawa bi gën a kawe niveau bi gën a kawe. 2022 ñëwaat Dubaï ëpp juróom fukki ay réew bokk ci ngir wane seen bopp. Dubaï fii bu ñu ñëwee dafa am test test boo xamante ni mooy tax ñi xam ndax ñii ñu wax mokkal nañu mokkal nañu déet test boobu ñuy test nag fii bi nu ñëwee. lu tolloog 49 maanaam ñeent fukk ak juróom-ñeent rek ñoo si jàll. ki nga xamante ne mooy Soxna Ndete Cissé moom mooy représenté Sénégal ànd ak Serigne Daaraam muy Serigne Cheikhouna Cissé. Soxna Ndete Cissé mii sax ngeen gis moom moo jëloon ñetteelu place si Grand Prix Sénico bi nga xamante ne moo nekkoon vingt 2021. pour la première fois gannaaw bi Soxna jaara jële woon troisième Malaisie. Maimouna Lo jël deuxième fii ci concours de Dubaï bi pour la première fois jigéen jël concours international ci alxuraanu karim muy soxna Ndaté si c'est Cissé وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا mu nekk loo xamante ni lu extraordinaire luy màggal Sénégal yëpp waaye luy màggal Afrique yëpp macha allah rabbi alamin salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ismi andati si أنزة سيسي من دولة السنغال الحمد لله أني فزت في المركز الأول في هذه المسابقة وأسأل الله أن يوفق الجميع كونكور بي نك موي مسابقه الشيخ فاطمه بنت مبارك الدوليه للقران الكريم بوكو نتي كونكور يي غنا ماك تي كونكور ييغا خامتاني نيو كونكور انترناسيونال ييغا خامتاني دنج تي جوغن نتي والا القران الكريم ندخ بريمي بري بريك 250000 درهم لا مانام خيما مو تولوك بريس 46 مليون فرانسي فا دونك لول موي بريمي بري 46 مليون

20 000 dirhams, nous avons 3 ci millions 600. si ouais, allah waaye ko concours local national ou régional au Sénégal bi da ngay que ni grand prix Sénéco boo xamante ni benn nit moo financé yemul concours boo xamante ni état financé. un concours géré par des États, 46 millions, un concours financé par une seule société, dem ba ci vingt millions kon macha allah on peut faire la comparaison très bien machallah moy concours Sénégal bi bokk na ci concours yi gëna a baax ci aduna bi donc comparé ak concours dubai bi nga xamanteni moy concours bi gëna a mag kon machallah allah gis nga concours Kenya yi concours yi am euh, yi nga xam Maroc yi am Arabie Saoudite donc concours bu jege 20 millions C'est pas évident nga gis ko ci aduna bi kon. kon ñi ngi féliciter bu baax fédération des daara du Sénégal di féliciter bu baax grand prix Sénico muy ñaari société yooyu muy Sénico ak fédération bi. ci seen lënkale seen doole ba jur nataay ji mooy résultat yi Mame Diarra ngoom jël li nga xamante ni moom mooy quatorzième ki nga xamante ni mooy soxna Zeynab Ngom jël huitième soxna euh, Khady Dramé jël sixième Maïmouna Lo jël deuxième soxna Ndate Cissé jël premier concours Dubaï bi juróom benn at rek la am maanaam bi mooy sixième édition bi waaye sénégalais yi jël nañ fi quatorze jël fi huit jël fi six jël fii deux ba jël fi premier day mel ne concours bi concours local la macha allah yàlla bana santaala fay sëriñ daara fay nongo daara yi waaye fay wayjur waaye fay ñi nga xamante ne ñoom ñooy organiser concours grand prix Sénégal félicitations à tout le monde بني أنا القرآن